découvrez Junior Solutions Technologiques, votre expert en réparation et vente d'ordinateurs et d'accessoires au Sénégal. Vous cherchez un expert de confiance pour la réparation de vos ordinateurs ou l'achat de matériel informatique de qualité au Sénégal Ne cherchez plus. Junior Solutions Technologiques est là pour répondre à tous vos besoins en matière de technologie. Réparation d'ordinateurs, notre expertise à votre service. En tant que plus grand réparateur d'ordinateurs au Sénégal, Junior Solutions Technologiques se distingue par la qualité de ses services et la compétence de ses techniciens. Que vous ayez un problème de matériel ou de logiciel, nous sommes prêts à intervenir rapidement et efficacement pour remettre votre appareil en état de marche. Nous réparons toutes les marques et tous les modèles. Pourquoi Choisir Junior. Solutions technologique expertise. Une équipe qualifiée et expérimentée pour des réparations rapides et fiables. Qualité. Des produits et accessoires de marque reconnus pour leur performance et leur durabilité. Service. Un accompagnement personnalisé et un service après-vente réactif pour votre tranquillité d'esprit. Ne laissez plus vos problèmes informatiques ralentir vos activités. Faites confiance à Junior Solutions Technologiques pour toutes vos réparations et achat d'ordinateurs au Sénégal. Appelez-nous au plus 221 33 842 41 34 ou plus 221 67 132 81 05. Médina rue, 6 angle 1, Dakar, Sénégal. Junior Solutions Technologiques, votre partenaire technologique de confiance au Sénégal. Khadim di sant Diamaguène bloc 16 bi di sant sama ville Tëngéej di sant euh, li nga xamante ne mooy poste Thiaroye Lamsar di sant waa Sam-Sam Kelimaan Jaara ñëpp maa ngi leen di bëggee di woo waa Gétti ñoom ñëpp maa leen di nuyu di nuyu Fass Mbao di nuyu ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ba benn brak di wax ne Pikine bloc 16 bi yëpp laay laay lay laay bëggee dem naa ba Tëngéej dem naa ba Bambey taax kon ku dem ba foofu nuyu na ñëpp. beneen bi mooy maa ngi wax sama mbokk séeréer leyaw foole séeréer lu xanaa leyaw séeréer li simnam gidmam to am wacci wayof lamgaka xa tuna na a ñojoor bo foyago fop mi simna nuun xoya nuun na combat fa neke njufa nu ngar ndamtam ngar siktam an nga o ɓinun séeréer nu an nga o ɓinun tena jongel tey kake ando nanga te ref roi des arènes nu siktam ndamtam maa ngi bëggee sama grand frère Morlo may dajeeg moom maa ngi koy bëggee muy sama adversaire maa ngi koy bëggee li ma waxoon rek cër bi du mës a cër bi am na ba pare fu ñu jaar dafa rafet ba pare nee naa diggante parcelle ak jaamagan ñaari waajur la papa ak yaay maa ngi sama yaay maa ngi sama yaay jaamagan du tey nag ma jox leen cër mais Modou laay dajal di wax ne maa ngi ñëw ku jàpp ne combat bi day yomb yaa ngi nax sa bopp kii du jaaxaane bis te bis bi bis bi jàmm gën waxuma la sax roi des arènes ñun dëj sax dëj dëj. waaw dëj sax pour ñu yëg la ko dëj la ñu doon dégg suñu bopp. dëj de waaw ñu ne diw moo gaañu jàmm la dëgg kon suñu fierté suñuy papa suñuy nijaay yàgg a bëre nekk si biir jàmm gën mosuñu am yenn dayoor si làmb waxuma la tey ñu dem bay bëre titre roi des arènes. Mm-hmm. café wu ma ko. café ko fooyoo ma ko. di bëggee suñu ki nga xamante ne mooy suñu promoteur. mi Mansour Ba Mansour Ba maa ngi koy nuyu di ko félicité di nuyu Eric Favre. waaw ñoom ñëpp maa leen di nuyu di nuyu ganam yi teew fii ñëpp maa ngi leen di nuyu. macha allah ñëpp maa ngi leen di nuyu ku fi teew rek maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. macha allah di wax ne. waaw ñi fi nekk. waaw muy samay supporters. dafa am benn baaraamu tuuma bu ñu leen mës a jiiñ. jógal wax ko dégg. waaw muy da ngeen violent te loolu amul ñu ay Baay Faal lañ léegi nag combat bi. waaw Mor la moo gën a yaru si àdduna. moo gën a baax moo gën a dal. Hmm. waa léegi nag kon combat bi xanaa waa parcelle dinañ ñëw ndànk waa jàmm gën ñëw ndànk. loolu lañ bëgg de léegi ñu xool ni dañuy combine wala combine ñu. combine waa du dafa am ñu ko wax. combat bi day am xeex day am bëre. incha allah loolu foofu laa mën a yemagum. combine moom loolu waxu saboté kan la sax jarul détail tontu ay combine ak yooyu jarul tontu jiiri jiiri jàmbaar news jegesil nga ñëw ak mbëri ci li nga xamante ne moom mooy combat bi jërëjëf Lamine mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di am kontante ak mbégte bu baax a baax daje ak ci milieu bii nga xamante ni bërëb bi dégg naa dix ans mu ngi nii jox ñu ko làmb tey bu ñu ko jëlee jox ko Modou Lo le roi des arènes ak Siteu mi nga xamante ni tarkindaa bi la dafa jar ñu jaajëfal leen félicité leen mais félicité supporteru Siteu félicité ki nga xamante ne mooy supporteru Modou Lo di ñaan yàlla nii ngeen xamante ni noonu ngeen dugg see ngeen génnaatee noonu ci jàmm ak salaam di félicité bu baax a baax a baax le PDG Mansour Ba yaakaar naa buñ nee jàmbaar production bi ñu juddee yàggut bi mooy seen sixième édition seen septième édition ñu fas yéene tëgg combat bi nga xamante ne mooy combat royal bi dox ci diggante Modou Lo kon Mansour ñu lay féliciter bu baaxa baax di la ñaanal yalla suñu borom defal la jamm defal la sutura ba mbébét bi nga xamanteni am nga ko ci lamb yalla katan la dole la ba nga defee ko ñu ko bëggé mbokk yi kii di modulo Lo bi ñu tabaskee ba nopi dama dem séti ko fekk ko salle de musculation muy entraîner entraînement bu mucc ay tay sitam mi nga xamante da ngay bëreek moom teg titre roi des arènes ñeme nga jakarlo ak mom samp jaaga taxaw xex ak mom xam nga luma modou ton yow yaa man yabu ndax lolu du question question bobu nak dama koy delo site mi nga xamantani mom moom lañ tarkindaa est-ce que tay bu arbitre ne prip li nga xamantani dañ koy moytu ci takau mi di nga taxaw samp jaaga jakarlo ak mom xex comme ni nga xex ak la dajeur de ndax ni lo mu sa wax say supporter def nga ko modou kii nag xale la boo xamante ne bi muy dugg si ci làmb ñu bari dañ ne woon taay bi matewu ko dayo bi matewu ko mu wane jom ak fulla ak fayda ba tey muy bëre ci Siteu mii tey ñu bari dañoo jël favori jox la ko te moom gëm na ni lu see États-Unis jëlsi fii lu waaye waxoon na ca dellu lan nga mën a wax Siteu mii nga xamante ni tey yéen ñaar da ngeen daje ci le mois de novembre maa lay jaajëfal bu baax Lamine aca man maa doon wax léegi de. waaw ah, mais yow la laaj. non Modou la laaj yéen ñaar ñëpp la laaj kay. waaw man moom li may wax moom mooy suul tànk yi ndengeñ yaram bi ñeme jam-jam yi. nee na li gars yi di ragal ci moom. waaw ku la nee suul say tànk ndengeñ sa yaram ñeme jam-jam yi loolu mooy dëggal sa bopp. mooy dëggal sa bopp Modou lan ngay tontu jiili. jiili lan nga laaj yow lan nga laaj Modou Lo. dama ne ko site mi bi muy dugg si ci lamb ñu bari dañ ne taay bi tolut noonu dayo bi tolut noonu mu bëree ak Lac de Guiers jom wane fulla wane fayda ñu bari ngay ak moom ñu jël favori bi jox la ko lan nga mën a wax say supporter ak site mi nga xamanteni ni moom nga nara a dajal waaw xanaa loolu mu doon dégg moom ba muy ci lamb ji man it loolu laa doon dégg parce que tey ñëpp waxoon nañ ni dafa am limite am na foo dafa yegg comme li nga wax taay bi matewu ko tey ya yàlla di indi ba denk ñu roi des arènes kon lolu kenn waxatu ko Siteu nak lu ñuy wax garab ci kaw lay fekkantee mbeur la bu dem ay preuve am limay wax ku rek ben VIP yegg na cercle des VIP te beur nak la de guerre tay suma mo lu mo xol wol wala déggoo kii du ma bëri moom ne dafa yegg si moo tax ma jël avance pour beur rek mom léegi nak amul problème ha ah, dañu ñaan rek yalla may ñu bis ba nawal fawal rek ah. nawal fawal mooy lan nee na sampu jaaga xeex ndengay yaram bi xamul mu ko waxee. waaw loolu moom ku ma ci woo mooy woo naar ci guuxum soow. ndengay yaram. ku ma xam xam ni sama yëf du yomb naa moom sama yëf yomb su ma ñëwee làmb ja damay xeex damay bëree waaye. leer na Siteu kon li nga bëggoon sa waay dana ko def. woo naa naar bi si guuxum waaw waaw. soo ko wooyee di ko naan. di nga ko wooyee ko naan. no modu man duma naa non sa soow so soow mo kon nan naan xaaral may so ya wo na ci gum so di nga dan yow tamit ya de ko luma la wax man dar neena la duma nan dara man dama ne xam nga dafa am luma wax lu am solo Modu bi dafa am luma am si ndagaru jaay ak liko wër man ma am luma am si ndagaru jaay ak liko wër ma wax si mom lu rafet ba tay yalla boole ñu xeyna sama yar ak sama teggin motax mau mu may mais man sama yoon xalaatu ma woon sa moom laay bëreel wax dëgg fa yàlla mais dinaa la xamal benn affaire. waaw kii. Ah. maanaam mat bu mu mat ak yéene bu mu am ba ne day bëreeg man may ma chance comme nu ma mayee chance yeneen boo yëpp waaye may nga chance jàmbaar dëgg te nag wax dëgg fa yàlla dañoo ne làmb làmb dañoo ne làmb buñ ko jaayul duñ ko jaayul du jar mais làmb ji dafa jar xam nga kañ la jar. ba mu taxawee kenn gisuma kenn dégguma li ñu naan compine la boobu la jar damaa noppaleku dem entraîné ji te tàmbalee guuma damay demaat tëjuwaat comme moom nu ko paree pour defee mais li may wax mooy dafa am lu ma la waxoon te xam naa ne bàyyiwoo ci xel dama la ne paquet du biscuit benn doo koy yëy yeeguma fen de yeeguma fen de na leer na leer de parce que dafa am ay baay faal yu may bégee moom dafa am ñu koy bégee fu ne moo xam jaamagan moo xam fu mën a doon mais dama laa ne douze laa yem douze boo yooyu benn bagatu miski laa ilaha illallah mari loolu muy wax waxu mbër la mbër mu nekk jaar na fi am li mu wax mais li ma waxoon comment passé lay waxaat du ma ñeexu ñebe kenn poj yomb na toog fii di wax mais bu ar bi tëjee géew yi lu naan lu waxoon na dellu man wax ju bëri mu ne ma ko oh supporter yi oh du di yéeg ak xoolal di yéeg ak ñom déglu leen gars yi ñu déglu ñu déglu ñu déglu combat bi du supporter ak supporter mbeur ak mbër la waaw exemple la hein, comme ni ko sute waxee lepp lépp nañ ko def ci fair play bis bi mois de novembre la te man ak cité la ci gëw gi Bienvenue chez Quincaillerie Kadim Rassoul, plomberie et sanitaire, QKR PS. Située à Dakar, au Malika Plage et à Touba, notre quincaillerie est votre destination de confiance pour tous vos besoins en plomberie, sanitaire et quincaillerie. Découvrez notre large gamme de produits de haute qualité. Des lumières élégantes et modernes, des interrupteurs et prises de haute gamme pour toutes vos installations électriques. Nous proposons également des lavabos de haute classe et des chaises anglaises de dernière génération pour apporter une touche de sophistication à vos espaces. Chez QKRPS, nous nous engageons à fournir des produits robustes et fiables pour vos projets de construction, de rénovation et de maintenance. Votre satisfaction est notre priorité absolue. Pour plus d'informations, visitez-nous à Dakar en face police Malika Plage ou appelez-nous au 77 635 96 33 77 953 27 77 33 827 04 39 Est QKR PS Touba, adresse Corniche Dara Jolof sur la route de Bakia, Téléphone 17 835 19 19 33 910 19 13. Email qkrps221 à gmail.com. Quincaillerie Kadim Rassoul, plomberie et sanitaire, où qualité et fiabilité riment avec excellence. <laughs>